conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse tali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naa ñu xëy ci réew mi te dégg musiba ci réew mi lu jafe la am na ñaari candidat BFM yu dëkk Tëngéej yoo xam ne dañoo àndoon génn seen kër dem sa géej ga doon sangu fa la ñu lap ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ñàkk seen bakkana kenn ki Mamadou Ba la tudd kenn ki Ousseynou Loum la tudd yéenekaay gi de la témoin xëy ci jafe yi nga xam ne am na ci biir magistrature bu Sénégal la mu jàpp sax mooy ab autopsie la ñu ci war a amal maanaam dañu ko war a ndëppal yéene kaay gi di source a mu xëy di ñu xamal naan ñu benn fan ci weeru mbara la étudiants yi demaat di jàngi waaye étudiants yi nga xam ne kenn orienté wu leen ñoom nee nañu ñu nangu étudiants yi di jàngi ñoom ñu bañ a jàngi li ñu bëgg mooy ñu orienté leen bu ñu leen orienté wul wala waxuñ leen lu leer benn fan ci weeru septembre maanaam jàng du ama yéene gi xëy di ñu xamal naan ñu waa yaana maar niki démb doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag wax nañ Macky Sall lu leer nañu ko Macky xalaatal bu baax a baax waxtaan la ak sa njaganaay ci lu jëm ci ñetteelu mandat nee nañu Macky Sall bis bu fi sóoboo ci ñetteelu mandat boobee ñun activistes yi ñoo ko siq ak moom yéen a kaay gi de la turbine xëy di ñu xamal lan ñu dialogue politique bi Karim Wade a Khalifa Sall kenn tudd fa seeni mbir maanaam ñoom ñooy grand perdant yi ndax lu jëm ci wàllum seeni droit civil ba léegi ne amuñu ko te soo muy tuulee élection locale yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmale muy Karim Wade muy Khalifa Sall duñu ci bokk yéen a kaay gi du l'observateur nee na tout li am ba des mooy dialogue politique bi am na nag ab piège boo xamante ni moo am ci lu jëm ci dàq gi nga xam ne maanaam moom la ñu bëgg a dàqaat élection yi waaye nag li am ba des mooy jàppante soo muy dina am dox diggante pouvoir bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jege yéen i kaay gi de Dakar Times wax diggante Sénégal ak France daan nay wax ne Emmanuel Macron ci Afrique de l'Ouest maanaam Macky Sall rek la fi dese ñi nga xam ne nag ñooy français yi maanaam dañuy jéem a nag di contrôler li nga xam ne mooy situation politique réew yi nga xam ne maanaam France ay jamono moo leen yilifoon rawatina sàmm seen intérêt ci lu jëm ci wàllum économie yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky mi nga xam ne moom lañ bàyyeele ndaje mi nga xam ne entreprise française yi jamono ji ñoo ngi koy amal ca Paris la France Macky Sall ci compte Twitter ma daan nay wax ne démb moog Emmanuel Macron ñoo añandoo waxtaane nañ lépp loo xam ne jëm na ci actualité patronat bu Sénégal ñoom tim ndaje mi nga xam ne entreprise française yi ngi koy amal ñoom sa cérémonie bi nga xam ne amal nañ ko démb ki nga xam ne mooy Debussier mi jiite kuréel gi nga xam ne moo ëmb entreprise yu France ak président Mbagnick Diop mi jiite MEDES ak premier ministre français bi di Jean Castex ñoom ñoo àndoon dem ci li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi secteur privé national bu Sénégal ak kuréel gi nga xam ne moo ëmb entreprise yu France daan nañuy am collaboration boo xamante ne bu équilibré la maanaam bu tolloo tolloo lu toll si ñaar fukk ak benneelu yoon boo xam ne ñoo ngi amal université d'été du MEDEF partenariat bi nga xam ne moo dox diggante public ak privé xayma nañ financement yi ci lu ci mille huit cent trente quatre milliards yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa juge Amadou Deme la mu xamle nee na justice bu Sénégal tànk nag tëddeewul njaaxaanaay askan wi ñëpp ñooy nekk ci danger te li gën a doy waar nag ci réewum Sénégal maanaam mooy Sénégalais yi ñoom seen bopp ñoo gëmatul justice bi ba nga xam ne ku leen tooñ sax du ñu jéem a dem si yoon ndax dañuy jàpp ne du ñu am dëgg juge Deme ne loole nag maanaam lu garaalu ci am réew yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal la ñu syndicat bi ëmb yi nekk ci ëttu attakaay yi ak garaaw bu moom la ñu nekke woon jamono ji teg nañ ko si suuf ci lu toll si ñeenti fan ba pare continuer li nga xam ne mooy négociation yi yéen kaay gi di suddi ko di cee daan na xëy ci Mansour Faye mi nga xam ne 69 milliards lañ ko joxoon ngir mu jënd ci ak dund séddale ko askanu Sénégal Mansour fay moom nag maanaam dañuy koy laaj ay rapport na ko Mansour Faye 69 milliards yi lu ñu bëgg ak li ñu sàkku manaam wax ñu dërëm bu nekk fën la dugg loolee di ay rapport la ñu koy laaj ba léegi nii yàgg na lool te Mansour Faye amul benn rapport boo xam ne génn na ko ay preuve yoo xam ne dina wane na ne xaalis bi nii ak naa maanaam la ko doxalee yéenekaay gi di réew mi quotidien dikk na ci CRD màggalug Tuuba gi nga xam ne amal nañ ko niki démb sëriñ Bassirou Abdou Khadre la mu xamle nee na sëriñ bi li mu santaane mbooleem taalibe yi ak képp ko xam ne yaa ngi ñëw ci màggal gi mbooleem loo xam ne ay mesure barrière la maanaam nga wàccoo ak moom yéenekaay gi di libération dikk na ci xale bu jigéen bi nga xam ne moom lañ séquestré woon sa yof da ko fay tëj ka ko fa tëjoon la tudd ak benn xale bu jigéen bu tudd Ndey Soxna Njaaye Lamine Balde moome nag moo yegg ci kaw xale bu jigéen bi ay yoon yoona Ndey Soxna Ndiaye moo doon dem di wuuti ay góor ñuy ñëw di tëddee ak xale bu jigéen bi waaye nag bu ñuy tëddee ak moom ba pare dañu koy fayub xaalis mu jël xaalis bi moom ak Lamine Balde daal di koy séddoo ñaar ñoo ñëpp yóbbu nañ leen ci kaso bi yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Ousmane Sy Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur exécutif bu Unacois Jàppo daan na waxtaan wu yaatu ak waa réew mi quotidien wax na ci lu jëm ci chiffre d'affaires bi nga xam ne Unacois Jàppo amee ko wax na ci xeex xam ne Unacois sumboon nañ ko jëm ci implantation grande surface yi maanaam bu ci mel ni Auchan na ci bi nga xam ne ne am na ci seenub liggéey maanaam commerce bi stade yéen dikk na ci lan moo tax FC Barcelone jamono ji am ay jafe-jafe bal yi ak Ismaïla Sarr bëri na ay club yoo xam ne soxla nañ leen yéen kaay gi du sunu làmb nee na Luc Nicolaï mi nga xam ne moo tëgg combat Ama Baldé Modou Lô ginnaaw bi ñu ko bàyyee ci kasu bi boobaak léegi toll na ci benn weer waaye Luc Nicolaï kenn dégg ko dana patta pataaral Jules Baldé bi ñu ko laajee nee na amul benn xibaar boo xamante ni jóge na ci Luc Nicolaï dikk ci mooma Birame Gningue moom nag la mu xamle nee na am na yaakaar ci combat bi à 100